Ah, j'ai compris. Merci. Okay, Merci. malheureusement suñu kuréel yi tijjee kenn mënu ko wax. Désolé, je n'avais pas vu l'appel, j'ai juste sorti d'une réunion. D'abord, c'est la honte. waxal Momo Fall. waaw toog Fall. Fall. Fall. C'est bon. encore encore euh, une minute rek. Mao, vous allez me permettre de dire à l'unité, à tout le monde qu'aujourd'hui, la mouvance présidentielle est ici présente pour apporter des solutions, des réponses cette grande coalition présidentielle aux détracteurs qui aujourd'hui sont en train de, désinformer la nation sénégalaise. Calais, Calais, Calais, Monsieur Habib Daoudela, Calais, Monsieur Ablaï Faye, permettez-moi de vous présenter Monsieur Mao. Il y a également Monsieur Sator Baye, il y a également Monsieur Pape Mao Diouf. Il porte la parole. Nous avons sur le président Monsieur Wali Faye, Wali Fall. Nous avons également monsieur Khafor Touré il est là parmi nous. Ah, c'est bon ah, c'est bon merci beaucoup merci beaucoup camarade euh, Kale Wade. Encore applaudissez un peu Kale Wade, s'il vous plaît. Voilà, bonsoir à tous, bonsoir chers euh, amis, euh, frères et sœurs journalistes, chers camarades ici présents. Et merci d'avoir euh, patienté le temps qu'on puisse vous adresser le message que nous sommes venus partager avec vous, tenant compte de l'actualité de la situation politique nationale. Voici donc comment nos échanges vont se structurer. Nous euh, passer la parole tout à l'heure au camarade Walifal qui va lire le texte liminaire, à la suite de quoi nous prendrons euh, cinq questions et ensuite euh, nous essayons de faire la synthèse des réponses avec les camarades ici présents et nous pourrons ensuite nous séparer le, le plus tôt possible. Donc je vais sans tarder proposer donc au camarade Walifal de lire le texte liminaire que nous partageons avec vous. <coughs> <coughs> <coughs> ça veut dire que parce que ci micro bi tuuti lay am. taxawal dara vas-y. Ah, ok. je vous remercie euh, Pape Mao. donc je vais euh, lire la déclaration qui a été faite aujourd'hui par la coalition. Benno Bokk Yaakaar ce mercredi 10 novembre 2021 certains dirigeants irresponsables de l'opposition ont lamentablement échoué dans leur entreprise insurrectionnelle de promotion du chaos et du désordre dans les rues de Dakar. Le maintien aujourd'hui de l'appel à leurs militants pour l'envahissement du tribunal de Dakar, malgré le renvoi du procès au 1er décembre prochain, prouve à suffisance que ces apparentes pyromanes ne reculeront devant rien dans leur funeste projet de déstabilisation de notre pays. La coalition Benno Bokk Yakaar constate pour s'en réjouir oui. La coalition Benno Bokk Yakaar constate pour s'en réjouir que les populations de Dakar en général et la jeunesse en particulier ont royalement ignoré ces nouveaux politiciens. La coalition salue encore une fois la maturité du peuple sénégalais qui a fini de démasquer ses imposteurs, ses putschistes et nihilistes invétérés. Par ailleurs, Les forces de défense et de sécurité ont parfaitement maîtrisé la situation sécuritaire, permettant ainsi aux Dakarois de vaquer tranquillement à leurs occupations quotidiennes. La coalition Benno Bokk Yakaar rend hommage aux forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme légendaire qui leur a permis de mettre hors d'état de nuire ses ennemis de la République. La coalition Benno Bokk Yakaar rappelle que tous les citoyens et ceux qui se réclament leaders politiques en particulier ont un devoir sacré de respect et de sauvegarde des institutions de notre République qui nous valent sympathie et considération de la communauté internationale. La vitalité démocratique de notre pays la vitalité démocratique de notre pays ne saurait souffrir des agissements puérils et funestes d'une certaine classe politique en quête inlassable d'une notoriété perdue et constatée durant les différentes compétitions électorales. Ainsi, la coalition Benno Bokk Yakaar invite tous les candidats aux prochaines élections territoriales à privilégier de façon pacifique l'occupation du terrain et l'offre de programmes crédibles aux populations qui détiennent seules les prérogatives de choix et par conséquent de légitimation de tout mandat électif. Enfin, la coalition Ben Yakar renouvelle son appel à tous ses militants et sympathisants pour une mobilisation constante et un dialogue permanent avec les populations pour élaborer des projets émergents de développement territorial. Vive le Sénégal, vive la coalition Ben Yakar. Je vous remercie de votre attention. Voilà, merci beaucoup. donc déclaration. Peut-être nous allons laisser Walifal la... un, résumé en Wolof. en Wolof. D'accord. Et après, nous allons prendre des, des questions et réponses. Assalamu alaikum dama leen di jàngal déclaration bi nga xam ne moom la coalition benn bokk yaakaar def tey ci bés bi tey ji àllarba. fukki fan ci weeru novembre 2021 ñenn ñi nga xam ne dañu ne ay responsable lañ ci opposition bi dañoo nasaxaay ci seen jéem-jéem ci créer fitna ak coono ci mbeddu Dakar yi donte tribunal dàq na procès bi ca 1 décembre bii di ñëw ñoom seen bopp dañoo bëggoon def leneen ndax dañoo continuer di wax seeni militant ak seen militante nañu dem ñu song tribunalu Ndakaaru Njaay mu doon loo xam ne lu garaaw la loo xam ne amul kenn koo xam ne nekk na ci Sénégal ngay doon kilifa wala ngay doon simple citoyen bu am sañ-sañ def lu mel noonu mais bi loolu amee ñun waa Bennoo Bokk Yaakaar dañ dañoo am mbégte bi ñuy gisee ne waa Dakar yi waa ndakaaru yi rawatina ndaw ñi amul kenn ku leen topp ci jéeye boobu bu doon loo xam ne dañ koy rafetlu ndax wane na léegi population Sénégal yàgg na gaaw mais ndaw ñi en particulier dañoo yeewu xam nañu ñi ñu war a topp ak ñi ñu warul topp ndax balaa ngeen ne naam ne fa ndax dañuy fàttali ne li fi amoon mars doon na jéeye boo xam ne kenn doon ko nangu fii ci réew mi ba tax na ñëpp dañoo toog seen kër wala ñu am soxla doxi seen soxla n'est-ce pas te kenn jotu leen bundu xataal bi loolu amee aussi benn bokk yaakaar di rafetlu liggéey bi nga xam ne moom la sunu alkaati yi ak gendarme yi taxaw tey ci ndakaaru njaay ba tax na tey amul kenn koo xam ne amoon nga soxla boo war a doxi te mënu loo ko doxi taxaw nañ taxawaay temm bi ñu leen xamee woon ci ci ci xaranteef amuñu ku ci blessé amuñu ku ci am problème tey tey li nga xam ni ñooñu lu ñu namoon def fexe nañ ba loolu naxasaay waa benn bokk yaakaar di leen sargal di leen félicité di leen encourager ci boobu fànn bi loolu wéyee benn bokk yaakaar di xamal ne képp kuy citoyen maanaam képp kuy sénégalais rawatina nag ñi nga xam ne dañuy mbubboo woon ne ñoom ay responsable lañu ay leader lañu dañoo am obligation respecter institution yi tubaab day wax ne les les hommes passent les institutions demeurent kon ñun ñëpp dañu am intérêt respecter suñu justice respecter suñuy alkaati respecter suñu suñu institution respecter suñu président de la République parce que loolu lañ fa am loolu moo tax tey adduna bi yëpp naw ñu loolu moo tax tey Sénégal foo dem ñu boole ko sur la liste verte te loolu ce n'est pas seulement les dirigeants mais peuple sénégalais dans sa maturité moo ko wane moo tax ñuy lancer appel à ce que képp koo xam ne tey da ngay jóg fexe ba li ngay wax ak li ngay jëf doon lu méngoo ak li respecter les institutions ñëpp xam nañ ne Sénégal ci wàllu démocratie ci wàllu élection gàcc ngaalaam ndax li fi xew depuis 2000 ba léegi tabarak fal macha allah dinañ jëm ci élection def ko ni mu war a leeree ni mu war a setee kii war a gañee gañee donte dina am ñuy ñaxtu waaye suñ demee ca fa mbaxane nekkee benn ku ci am dëgg am nga dëgg ku amul dëgg amoo dëgg te ñëpp xëy suba dem liggéey dox seen soxla kon loolu nga xam ne moom la loolu mooy mandarga Sénégal ci Afrique ci àdduna bi nañu fexe ba sàmm ko ndax loolu moo ñu jig bu loolu weesoo li jëm ci élection yi nu ñëw muy élection gox goxaan taxawaay bi nga xam ne ñëpp moom la ñu war a taxaw képp koo xam ne tey candidat nga ak foo munti bokk luñ lay digal mooy nga dem ci terrain bi. nga dem waxtaan ak population yi proposer leen sa programme ñu bàyyi leen ñoom ñi nga xam ne ñoom rek ñoo am pouvoir le 23 janvier ca bés ba ñu seet ku nekk la nga proposé ku nekk la nga leen dig ak ka ñu wóolu ku ñu wóoluwul ñu tànn ku neex su ko defee jàmm des fii gox-goxaan yi am émergence Sénégal yokku ñëpp nekk si jàmm wasalaam loolu laa amoon ci lu may résumé ci kàddu Benno Bokk Yaakaar tu viens prendre ta place. Il y a tontu question euh, merci beaucoup camarade Waly Fall. Nous allons euh, merci beaucoup camarade Waly Fall. Nous allons donc donner la parole à, aux journalistes qui ont des questions Euh, ñu poser questions yi et puis après on va apporter des réponses euh, aux questions qui seront posées selon l'actualité. Est-ce que vous avez des questions, messieurs les journalistes, mesdames, messieurs Alors, est-ce il y a d'autres préoccupations Non Très bien. Bon, on va donner une première réponse avant de donner aux camarades. Vous êtes de quel organe 7TV. Merci beaucoup. Euh, comme nous l'avons précisé tout à l'heure, il faut le constater et sans féliciter. Les Sénégalais et les Dakarois n'ont effectivement pas répondu à l'appel insurrectionnel de M. Khalifa Sall et de sa meute composée, principalement de Barthélémy Diaz et de M. Ousmane Sonko. Nous avons ici une jeunesse engagée et déterminée dans cette salle. Déterminée à défendre le Sénégal et déterminée à défendre le legs démocratique de nos pères fondateurs. Nous avons un projet politique. Nous avons le plan Sénégal émergent. Nous avons une coalition plurielle, multicolore, avec des hommes politiques d'envergure, d'expérience, évidemment que non seulement nous n'avons pas peur, mieux, nous sommes convaincus de notre victoire le 23 janvier. Nous allons gagner. Nous allons parce que nous un projet. Nous allons parce que nous avons un leader. Nous allons parce que nous avons un chef d'État en compagnie d'hommes politiques de premier plan, avec des projets qui transforment la vie des Sénégalais partout à travers le pays. Voilà pourquoi nous n'avons pas le moindre doute qu'au soir du 23 janvier, nous aurons gagné pas moins de 500 communes à travers le pays. On vous parle chiffres et Et Et c'est parce qu'ils le savent que jusqu'à présent, ni Ousmane Sall et encore moins Barthélémy Diaz n'ont formulé le moindre programme, la moindre vision pour aucune commune dans le pays. Leur projet était de promettre ce soir, aujourd'hui, du sang et de la sueur. Leur projet était de promettre une deuxième vague. Les Sénégalais ne leur ont pas répondu. La jeunesse du pays, ici, n'a pas répondu. C'est un échec cuisant qu'ils tentent maladroitement de redresser pour en faire une victoire. Mais nous ne sommes pas dupes. Et les Sénégalais ne sont pas dupes. Voilà pourquoi, messieurs, Quand on dit que les Sénégalais ne sont pas sortis et la jeunesse de ce pays est allée voquer à ces occupations, nous avons raison. Et toute personne lucide sait qu'aujourd'hui, leur tentative n'était pas une tentative politique saine. C'était une tentative insurrectionnelle qui n'a pas fonctionné. Quant aux menaces et aux bravades qui ont été dites tout à l'heure par le sieur Sonko, ben, qu'ils s'y mettent, qu'ils continuent, Nous, nous pensons au pays, nous pensons aux Sénégalais. Nous appelons à la paix et à la sérénité. Nous n'avons pas promis, nous, de mettre le feu au palais de justice. Nous n'avons pas promis, nous, de faire une deuxième vague. Nous n'avons pas profité de propos injurieux devant les forces de défense et de sécurité. Nous avons manifesté pacifiquement et nous avons constaté que les forces de défense et de sécurité du pays sont parfaitement en mesure de garder et de sécuriser et de garantir la circulation libre des personnes et des biens. Voilà pourquoi nous nous félicitons du fait que la maturité sénégalaise et la maturité du système démocratique sénégalais s'est encore montrée aujourd'hui plus que jamais. Nous invitons les acteurs politiques à aller programme contre programme partout dans le pays, convaincre les compatriotes, seuls détenteurs de la légitimité politique au Sénégal. Voilà ce à la question que vous nous peut-être tontu ci wolof rapidement sëñ bi day laaj ne suñu nee nit ñi génnuñ fan lañ ko teg ndax gis nañ ay lacrymogène ma ne ko waaw xëj na lacrymogène am na waaye ña fa demoon di jéem a jaxase ñoom la lacrymogène yi dal seen kaw waaye suñu xoolee li ñu yéene woon ndax fàtte xaju fi diggante démb ak tey woo nañ xale yi ak ndaw réew mi ñu génn dem tribinal dajaloo fa ngir créer fitna ci kaw nguur gi ñuy ñu ñu seetlu ne kenn topp leen ci loolu sénégalais yi suñ leen toppoon génn kon musiba am ndax dinañ dal ci kaw ñi nga xam ne ñooy takk der yi mu jur musiba loolu nag gannaaw seetlu nañ ne xew fi nit ñi téye nañ seen i njaboot ña doon xëy xëy nañ nit ñee góor góorlu si seen liggéey xëy nañ dem di ci liggéey ñu mun a rafetlu loolu ne lii nga xam ne moo doon seen mbëbët mooy créer fitna ci biir Ndakaaru tey ak ci biir Sénégal yàlla dogalul ne loolu am na ñu di ko rafetlu di féliciter li nga xamee ne jeunesse bi taxaw na taxaw temm bañ li nga xam ne ci lañ ko waroon a dugal ñiy menacer nit ñi di menacer démocratie Sénégal dañu xamul Sénégal xamuñu démocratie am système démocratique sénégalais doon na un système suffisamment éprouvé boo xam ne du ku nekk rek mun nga jóg daal di menacer nit ñi ne da ngay jaxase réew mi loolu politiquement ñoom dañu war a xam ne kenn deetu leen ko may. Ousmane Sonko ak Barthélemy Diaz dañu war a xam ne réew mi donnuñu ko ci kenn réew mi ñun ñëpp ko bokk kenn mënu ko pàccoo dañ cay waxtaane du jaayante doole te du am benn jeunesse la jeunesse de la coalition dama dolli ne dama dolli li leen tiital ba tax ñu jóg jublu ci élection jóguñu dem jël seen programme di joxe dem ci gox yeeg gox goxaan yi ne leen ñun lii mooy sunu mbëbët ci liggéey réew mi ak gox yeeg gox goxaan yi ñu ne ñoom dañuy jóg di créer fitna ci réew mi li ko waral xam nañ ko waaye rik waay ku munta bind liste ba mu mot noo mën a jiiteem réew ku munta bind liste bu mot ak rigueur naka nga mun a jiitee commune ma teg ci ne suñu xoolee mbir mi xool ko rek ci ni mu war a demee li wóor ndam li ci loxoy sénégalais yi la nekk ku ñu voté nga fal waaye ñun wóolu nañ suñu bopp te yaakaar nañ ne le 23 juin suñ fa yeggee dinañ leen duma duma yu leer duma loolu nag liñ ko xam moo tax waxuñu ci waxu programme ak élection jéem a jaxase réew fitna ngeen fi bëggoon a indi waxu jàmm yi ngeen wax ci ngoon yépp mooy li ngeen a bëggoon a indi waxu fitna doxul ngeen wëlbati seen kàddu di indi jàmm rekk waaye sax leen ci jàmm léegi bu leen waxati deuxième vague bu leen waxati bravade bu leen waxati menace nit ñi di leen xoxatal Sénégal réew jàmm la ci loolu lañu invité nit ñi dem leen proposé ci sénégalais yi li ngeen leen a mën a proposé ñun nag dañoo liggéey te wóolu liggéey bi ñu liggéey dañoo am bu mat njiit muy président de la république Macky Sall mu am coalition bu mat coalition dajale homme politique yi am njëriñ ci réew mi am fulaak fayda te bëgg seen réew liggéey fi ci gox yeeg gox goxaan yi ci Sénégal yépp loo xam ne ku tijji sa bët teg ko ci yaa xam ci yoon la ak infrastructure yaa xam bourse de sécurité familiale yaa xam la compagnie nationale aérienne Air Sénégal yaa xam Diamniadio qui est une ville nouvelle toute neuve jóg taxaw nga jël le pont de Rosso nga jël le pont de la Casamance nga jël le pont de la Gambie Sénégal li fi président de la République liggéey gox yépp a ko xam loolu nag moo tax fi ñu jëm ñi ñi amul ñi amul programme amuñu vision faw ñu jéem a yëkkati leneen waaye dañoo xamul Sénégal lii daal mooy tontu bi nga xam ne bëggoon nañ ko joxe di leen gërëm di leen sant di jox ah, di jox sa merci beaucoup jërëjëf jërëjëf jërëjëf